yàlla na fi yàlla yàggal lool faal te wéral li cëram tey nag ñi ngi fii jannatu nekk guddi gi ñu tudde guddi maam Cheikh Rafal gis si ku tedd ki gërëme woon Cheikh Rafal ñu koy màggale fii ci janatu màggal gi nag bu njëkk dañ ko daan màggale fee ca Tiwaawoon ci ndigalul alaaji Baara Falelu moo joxoon ndigal sëriñ Bassirou Fall alxuraan bu koy màggale fii ci Touba ci janatu sëriñ Bassirou Fall alxuraan ndax bu ne sëriñ Bassirou Fall alxuraan dañuy taxaw foofu ci toogaay bi nga xam ne moom la toogaay baayam toog toogaay bi nga xam ne moom la toogaay maamam bu dee siwaatoon jamono dara du ci soppeeku sa bi safa alxuraan waajuram mi ngi tudd Serigne Mbacke Fall mooy waajuram nekk fii nekk fii ci Touba janatu tey na gis ngeen màggal gi mbirum Baye Fall la démb ci guddi di nañ leen fi jëlale woon na li nga xam ne moo fi nekkoon ci conférence bi barawul kenn mboolem fu nit mën a nekk ci àdduna gis nga Waarwi TV taxawaay bi nga xam ne da koy taxaw ci ci bis yi nga xam ne ku tedd ki lañ koy màggal wala ci njabootu ku tedd ki tey nag moo waral ñu ñëw fii ci janatu fii ci kër Sëñ Bassirou Fall alxuraan fekk sëñ na Fall doomam ñu dugg ci biir wal leen ziare yi nga xam ne moom la kilifa yi ñëw di ziare si ak taaliba yi fu ñuy jóge rek ñëw fii ci ziare si kon ànd ak ca Camara ba Soxna Awa Ndiaye sërësi ba Sëriñ Bassirou ñu dugg ci biir wal leen mbokk jullit yi ak mbokk taaliba yi naka la ñuy màggale Cheikh Ibra ndax Cheikh Ibra dëgg rek kay dëgg ndax maam Cheikh Ibra Fall ku ne xam ne digganteem ak Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul Yalla dalu walu ya wa طيبا لا kenn fu mujj te bu ñu deboon alalam xalaatam ak ñaanam di ko bàyyi ca barab ba kon dañuy ñaan ci dara ji sëñ Bamba barke fi soxlaat Cheikh Moussa yàlla nga fa yàgg lool yàlla nga wér kii sëñ Gunda Fall di taawub sëñ Basi Fall alxuraan sëñ bi xam nga ni màggeeg eh, jamono ji ak wér-digi moo tax rek mi ngi sant bu baax a baax nag waaye da ko dama toogam faran nekkal ma fa sama sëriñ si bu ñëwee ak sama bokk bapp yi nga dalal leen ànd ak ñoom bis bi li moo la jotaay bi sëñ Bass Cokke moo toog noonu doomi sëñ Cheikh Fall Cokke moom la sëriñ bi yëkkati màggal lépp lu waay di joxe lu waay di wax waxal ak sëñ Gunda Cokke lépp nga ci loxoom lépp ni ko sëñ bi wóoloo doyloo noonu la njaboot gi àndandoo wóolu ko doylu ko am ci yaakaar te ñaan yàlla yaakaar yooyu yàlla mu tas ci dara ji sëñ Bamba barke maam Cheikh Fall waaye Cheikh Moustapha yàlla nga fi yàgg lool waaye Mbàkke yàlla nga wér jërëjëf ñu ngi fii ci Jannatul Mahwa cëtub jàmbaare lislaam sëriñ bi Fall alxuraan moom sëriñ Mbàkke Fall moom am Cheikh Ibrahima Fall bis nga xam ne yàllaa ko jagleel bokkam yëpp kilifa yëpp nangul ko ko dara jaale ko ko mu di ko taxaw at mu jot xam ngeen ni ren sëriñ bi fi jamono ju toll moo tax mu yabal doomam yu baax ji sëriñ Gunda Fall ni ko toogal fa ma dan toog sama sëriñ si ak saa mbokk yi soppee taalibe yi ak donge yi bu ñëwee nga dalal leen ci bis nga xam ni dama ko séq bokk ñoom duñ dem loolaa waral nag ku toog ci jotaay bii sa dem ca jàmbaar ja soppa maam Cheikh Ibrahima Fall ba mooy kan sëriñ sërif Abdourahmane Fall ci laa la sopp Cheikh Fall lool bëgg Cheikh Fall lool doyloo Cheikh Fall lool yaakaar ko lool léppam di Cheikh Ibrahima Fall jàmbaar joojee ñu ngi ñaan ci darajee Sëriñ Bamba yal na ko yàlla teeru teral ko darajee Cheikh Ibrahima Fall tabal ko àjjana yi gën a kawe ci barke soppem ba jàmbaar ja Sidi Ibrahima Fall kon na mel ne xalifaam moo def délégué soo ànd ak jàmbaar yi nga xam ne ku xool tey sa yaram daw saxal dem ca jàmbaar ja ka bëgg suñ bamba doyloo suñ bamba wóolu Cheikh Ibrahima Fall Serif Abdourahmane Fall ci laala yal na yàlla doon leeram sëriñ bi kon suñ gañ suñ baa ngi wa sahlan ni mu ko waxee rek kër gi seen kër li mu fa dooloo ngeen fi doon pas-pas may na lu ne ku ne ca mi wut ca mi sàkku si mu daqaa jàmbaar ja daan ku ne parce que fam te koy fekk man ko daa dimbali Serif lu ko may lii pas-pas moo ko may kon kër gi seen kër lu ngi leen di ahlan wa sahlan dal leen ci jàmm kàddu gaa ngi nii ñoo ngi sant yàlla bu baax di jullu ci Seydina Muhammad alayhi salaatu di yokk sunu kóoluteef ak sunu ngëm ak sunu doyloo ak sunu wóolu Cheikh Ahmadul Xadim Xadimu Rasulullahi sallallahu waaye di ndokkeel bu baax maam Cheikh Ibrahima Fall ci bisam bii tey di siyaare bu baax tey gën a wóolu tey ñaan sëriñ Muntaxa sama borom yàlla yàggal ko te wéral ko waaye ñaan gu mel noonu nag ñu ngi koy ñaanal sëriñ Cheikh jëm mu yàgg ci jataay bi lool waaye ñoo ngi koy ñaanal it sëriñ Bassirou Fall moom sëñ Mbacke Fall moom maam seex Ibrahima Fall ndax lii moo ko tàmbali yàlla nañ ko ànd ak moom ay at yu baree baree baree baree baree bëri ren jii nag dañ fee fekk sëñ Gunda Fall taawam bu baax bii yàlla sama borom dogal sunu jàmbaar ji yàlla na borom yàlla yokk ay ngërëmam Cheikh Sirif Abdourahmane Fall Tilala Xaadimul Xadim ren mu dëddnu suñuy bët ñu ànd ak taawam bu baax bii sëñ Abdou Aziz Fall Tilala dogal mu tàmbali sof fa baayam yemoon sëñ Bassirou Fall Alxuraan kat daa am loo xamante ne da ko waxoon sëriñ bi ci kër Macky Sall booba nekkagul président de la république booba président assemblée nationale la sëñ Moustapha Sylla mii ma feggool maa ngi koy siyaare bu baax ca jataay ba la newoon bis booba sëñ Bassirou Fall Alxuraan dafa wax ni yàlla mi def nii sëñ Tuubaa def nii maam Cheikh Ibra moo def nii Sërif Abdourahmane Fall Tilala daa di ko ni sa ci maam Cheikh Ibra kat gone yi xamuñu ko moo tax joxuñu la ko man la ko Cheikh Ibra Fall xamal maa la ko jox sëñ Bassirou Fall alxuraan ñun waa kër Sërif Abdourahmane Fall Tilala mënuñu koo fay amuñu ko ñaar ndax ni mu defoon sëñ bi da ko defoon ba doom def ko xarit def ko taalibe jàmbaar jooju lu jàkkaar lool moo di sëriñ Cheikh Ndiaye moom Cheikh Moustapha Fall moom Cheikh Rayma Fall waaye nu xam ne jotaay bi tam njabootug Seex Naar Jenn ñu fi sëriñ Sidi Jenn moom Seex Naar Jenn yabal na sëñ Basiru Jenn rakam moom sëñ Naar moo tax njabootam gépp ak jawriñ Mbaye Daam Gay Yeah. يا